def na juumul def na ko fa mu ko war a def décoré kan liiru jaan décoré kan Bada Jonn décoré kan Père Thioune Jim Ndiaye juumul yàlla na ko yàlla lafal cat waaye nag décoré bi sama xol da cee sedd ndax sama doomu ndey dafa ñëw taaw sama patron sama lépp daal ñëw tax mbokk mi ay Barthélémy Dias borom Yewwi Askan Wi yow moom dafa taxaw nii boo taxawee ñu taxaw arrangé wu. waaw mani yéen daal moom comme yéen ay porte-voix xool nu ñuy def ak yéen mais xam naa ne kontaan ngeen yéen ñëpp d'accord ngeen. buñ nañ ñun ñëpp kontaan. noonu ah. kon décoré nañ leen yéen ñëpp yàlla nañu yàlla dolli sutura waaw. mais xam nga kii bii kan laa ko tudde ah. Mame Matar Thioune sama sama xalifa sama xalifa laa ko tudde waaw yow c'est que da nga baadoo la non booy bi dafa baadoo la non booy bi dafa baadoo la promoteur bi nga xam ne moo organisé bis bi muy Jibson production Jibson tey nga organisé bis bu rëy ñu gis ci ay kilifa Gaston Mbengue Aziz Ale Baye Ndiaye ak kilifa yu mag a mag yoo xamante ne vraiment ñëw nañ wuy si la sa bis bi ban yëg-yëg nga am ci bisi bi. Ah, di kontaan rek di kontaan di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñu waa dëkk waa Seew di la xamal ne daal lu man di am kontaan naa parce que muy Aziz ak Baye ñooñu dañoo bokk ci man ku demee ni Kanji ñëw na Père Gaston Mbengue ngi ñëw Sane ñoom ñëw euh, Pérési ñoom ñëw promoteur yëpp wuy na nañ ma hommage kon dama leen di ñaanal yàlla yàggal leen ci sama kanam man mënuma dara maa ngi sant nag Abdoulaye Ndiaye. muy sama xarit di sama wëllëre du ma ko sant dama koy ñaanal euh, yàlla yàggal ko ci suñu kanam defal ko sutura ak jàmm di na xamal ne daal lu mën di am kontaan naa. Euh, deuxième journée bi. Ah. kañ la. deuxième journée bi maa ngi xam nga samay mbir moom damay waxtaan ak kilifa ba pare door a def du ma tëb tëb def dara staff bi ne ci sama ginnaaw daal muy Abdoulaye Ndiaye baa Ndiaye ak Aziz ñoom. ñu ngi togg journée bi saa bu sottee rek incha allah dinañ la ko yëgal. seen diggante ak Pape Modou gis nañ nga dara jaal ko ñetti yoon bi mooy troisième audition seen diggante yéen ñaar lan la. Pape Modou bi may door a commencé lamb ñëpp dem naa boycotté mu jàpp ma. Pape Modou ma estimé ko muy nit ku gore nit ku valeur te kenn xamu ko ma gis moom yu bari ma ne kii dama koy delloo njukkal parce que dafa man métier te kenn xamu ko du ko tiitaroo du ko doxee. muy sama xarit di sama doomu ndey man ku ma tuddee lamb rek sama kóllëre Pape Diouf mi ngay gis maa moom ñoo bokk benn quartier foo àndoo màggaloo muy sama xarit di sama lépp ñu xëccoo mairie Dakar Plateau yàlla na ko ko yàlla jox Baye Mor mi nga gis ka Nord dafa dem ba may sama xarit bi may àndal rakam jabar kooku ko kóllëre la kóllëre la kon Modou Diouf mi nga xam ne mooy quatrième bi maa ngi moom ñoo bokk mel na maa mu nga jóge ma tuddee ko ko mboolem ku ma tuddee fii lamb rek xamal ne sama wëllare wu yàgg la du hasard man nag kontaan naa di sant Kanji di sant Sam di sant Mor Mbaye di sant euh, Pérési di sant promoteur yëpp di leen xamal ne sama xol sedd na ko jërëjëf.